laa ilaaha illallah di wax mbokku internet yi nga xam ne ñooy bàyyi wasaare TV xel nekkoon ne abonné ba seetlu de notification pour am benn vidéo wasaare kër nga ngeen mën a am en en exclusivité ndax wasaare mooy télé bi lay jege di la won sa seetaan wóorul waaye. télé bi nga télé moo lay jege di la woon sa bopp mooy Wassare TV ñàkk koo seetaan mu ngi mel ni jigéen bi toll sayta seyoo boobu sa dëgg takoo ngay doon bu ñuy wax làmb wasaare tax bu ñuy wax ngay mexe tax waaye bu ñuy wax wasaare bu ñuy wax làmb wasaare tax la ilaha illallah waaye Iba ngi ambiance lu doy war fee Liss Ndiane noonu Caatu Seras Waly Seck mais Waly Seck moom wala nga xamee woon de Waly Seck wala nga xamee woon Caatu Seras moo nekk ngir jëli Birama Coor maa ngi nuyu sama papa jooju au passage. Caatu Seras ak Waly Seck. arbitre mu ngi leen wax li nga xam ne sifflé le combat bi Thiatou Seras ak jàkkaarool ah dóor na dóor bañ kay dóor Thiatou Seras ak Waly Seck ña xeex laay laaxay laa jaay xale amatu leen am kaabaanu am am jàppante nañ ñaari xale yi jàppante nañ ñaari xale yi jàppante nañ. waaye nag doo te Thiatou Seras tànn ko Thiatou Seras tànn na ki nga xam ne mooy Wally Seck laa laaxay la laa Modou Baba Diop baa ngi Thiatou Sané ngoog Thiatou Thiatou Seras kay. waaw Thiatou Seras tey man ko woo bëgg doole. booy nañ ñëw ñu bëre. ñoo bëre combat bi maa samay quatre combat. ñëw doo bëre ci combat bi. ñu ma bëre ci bi man ko woo bëgg ak doole. jàpp ko taxu ko daan ko jël bu rëy. combat bi dama dégg lu ne. combat bi dama dégg lu ne. barki Seydina Mohamed maa ngi ñaanal nag ah. sama kos kii nii aw ma wër na sëriñ Bamba ba PC maa ngi bëggee boo yëpp di leen ñaanal ci lañ nekk ñu génn ci man ku ma jàppale ku nekk champion laa doon te ma gëm sama bopp. koo jëm barki Seydina Mohamed. koo jëm te milki soo mi ñu bëre. na ñëw ma defaral ko du bandi du. la ilaha illallah barki Serigne Bamba. waaw tey du ma waajee waa ànd seen figi ak seen 100 ñoo waral lii ak Serigne Touba Mbacke. xam nga xale waaw xam waaw xam naa ko xamul làmb nii rek waaw mais damaa nekk sama yoon. te si kàddu waaw loolu noonu wax day wax lu ko neex rek mais yàlla may ndam yàlla ma yàlla loolu laay ñaan noonu la fa demee nag yàlla damay may ndam man ñi ñi ñoo tax may rayante tey bisi day lu laaj dama koy def tey lan lañ mën a xaar si ki nga xam ne mooy Drago waaw rek lépp a ngi fi bu laajee bëre ñu bëre bu laajee xeex ñu xeex waa wala si bëri bi. waaw lamb la raad rek lamb la la wax lamb daal wax. bëri boppam. waaw Wassare TV dinaa wax si yéen ndax a yaa ma toll sama cimukaay. loolu dëgg la ngaay meexal woon. tey bu du woon yow lan tere loolu man. waaw mais yaa ngi Wassare TV télé bi nga xam ne mooy gën a jege jëloon sa bopp ñu gis nga indi tey sa drapeau teg ko si bi drapeau bi foo ko jëlee. waaw. laa ilaaha Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ma sante sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom Maxrim ak laa sant sama sëriñ Ablaye Wade sant Ibrahima Sall sant maam Thierno Ibrahima Mbacke borom di sant rek Amadou Hott ak grand Seydou Diallo quelque ñu ko Sam Sam 3 président maa ngi ko sant ba dugg gërëm di sant nag waa Sénégal ñëpp damaa bëri ñëwoon Casamance yàlla def ma am fa ndam keroog damaa bëre 4 avril fii ma ñàkk sama combat mën na lu màgg daan dem Casamance yàlla def ma daan fa jëlee bu yàggaloon ko yàggaloon ko. waaw benn gaañ bu ñuy wax Balla Gaye numéro 2 suma benn xarit bu ñu ne grand Lamine Dabo moo tëggal combat bi benn dëkk bu ñuy wax Sassamba mu ñuy bëri benn doomu soose yàlla def ma am si moom ndam moo tax drapeau moo nekk nii. loolu waral drapeau bi. waaw loolu dama indi drapeau pour wane ne gars yi. jël. waaw xam nga man moom dépassé naa fu may laajee ay mbër. mbër métier mbay métier ba. écrit Balla Gaye. mbay métier keroog ba ma daane la ma gëj a loo ko gaañu dégg xam nga genre yooyu su ma leen jël duñu bëre man ma neex nii rek ma jël ko ma daal ko mu neex ma daanal ko mu neex ñu moom mooy loolu mais man boo ma xasee daan ma sawar si yow damay seet yeneen bu yi soog a dégg su ma xasee neen na moom ba daan la moom ñem naa beneen bàyyi naa mu soog koo dégg dama la moo tax mbay mi dafa maa gis sax ne ma yaa yaa jël ma ne mbay ba ma ba ma daanee ba léegi am ko combat am naa juróom benn combat may ba ma. boo koy yaaw jaar waaye dem jël nga xam ne mooy quatrième si dégg. waaw mais kontaan naa fii si liggéey yàlla réussi. alama yow si liggéey dinaa si jàpp yow si liggéey dinaa si jàpp ndax ma amoon di ba 20 heures. waa ngaay ma yaaw. ma soog a jàpp daa guddi. boobu yaa ngi tuut tànk. xale bu ndaw. mën naa la jàppale nag incha allah. ñoo far te yàlla na yàlla jàppale incha allah yàlla. jàppale wasaare tuuti. lay léegi la la moom sallallahu alayhi wasallam man yaa wu jaar maa ngi déglu wasaare TV barke sëñ Bamba. waaye mbokk yi ñu dem jël quatrième combat bi la suñu gën a gëm. loolu la quatrième combat baa ngi doon ab suñu combat bi dox sa kaw. ak yaa ne mooy naxan deux naxan deux moo wane ginnaaw dox sa kaw lañ jàkkaarlool moo ngeen moo ngeen mu lu weex li dox sa kaw ak naxan deux naxan deux mu ngi nekk kii caare 40. Ndaxandoo mi ngi nekk igri caare 44 waaye dox sa kaw moo na igri Abil Ndiaye waaw Ndaxandoo Ndaxan mooy ndaamali moom lañ jàkkaar lool moo nge moo dox sa kaw moo nge moo nge mu lu weex li moo nekk igri Abil Ndiaye Ndaxandoo mu ngi caare 44 ma nga bàyyi keppaar ki nga xamante ne nii moo di tumaani bu 44 du nuyu waa caare ñëpp waa mbay ah kii la dox sa ko dugalagul jàppante dugal ay coup dox ca kaw di dugal ay coup dox ca kaw di door ay coup laa ilaaha illallah dox ca kaw na ma moytu xeex bu sew ma moytu waaye borom TFM a ngi nii laa ilaaha ñaari xale yaa ngi noonu dox kaw ak naxande dox sa kaw ikiri Abib Ndiaye naxande caare 44 naxande dox sa jàppante bi lay bëgg jàppante bi na ko bañ. jàppante nañ. ñaari xale yi jàppante nañ. Ndaxaan deux kaw doxan kaw door na ko dox sa kaw yi xeex. laa ilaaha illallaah ñaari xale yaa ngi mel dafa mel ki nga xam mooy Ndaxaan naxan jàpp la bëgg. naxan de. def na lu am solo. ndax nekk na fi pour jàppale jàppale xale yi. ndax mbam gàtt na waaye si njur gi la bokk. nee na chaque mercredi dina tëgg làmb xale yi. tuddee ko les mercredis les mercredis parce que wax na dëgg xale yi yaakaar làmb lañ yaakaar. dañuy laam ñoo ko moom cosaan cosaan la kenn jéggaane wu ko ay xale lañ laa ilaaha illallah lamb lañ yaakaar ñaari xale yaa ngi noonu dox sa kaw ak ki nga xamante ne nii mooy naxan dëb dox sa kaw ngi dugal ay coup dox sa kaw ak naxan dox sa kaw ak naxande bu moo ko intoon na nga xam ne ñooy bàyyi wasaare TV wasaare làmb xel deen jaajëfal bu baax a baax tey sunu xarit sunu soppe seen ndaanaan ko daa dégg daa génn tey muy jili di ko ñaanal jàmm muy ndaanaanu làmb waaye ki nga mooy naxande ak ki nga dox ca kaw ba léegi jàppante naxande jàpp na ngemb dox ca kaw ngay dóor téye loxo ba loxo droite ba laala xale yi nañ xale yi nañ njàng bëre ana fàqet laa ilaha illallah laa ilaha di leen fàttali ñu ngi tey mercredi fii 16 juin fii si arène nationale ñu ànd seeg waa CNG comité national de gestion bi nga xam ne moo ëmb làmb dajale fi ay xale yu am jom ay espoir ndax xale yi doon mag ëllëg dox sa kaw ak naxande kay sarax ma ko ak dox sa kaw ñaari xale yaa ngi noonu naxan doo dox sa kaw naxan doo ak dox ca kaw naxan doo moo nekk nga xam ne mooy caare 44 dox ca kaw moo nekk Abib Ndiaye nañ bëree jóge fi nañ baaw jëre gaaw bëree jóge fi ah ki nga xam mooy naxa na li muy may ba mbaa ba mbaa du doy waar. dox sa kaw nag nga dox si kaw waa ji mu jeex nag. ah. dox sa kaw nag nañoo dox si kawam. dox sa kaw est-ce que naxan dox si kawam la. loolu tamit dañ jël a bàyyi xel la. ah. nañ bëre. ah naka da ngi dóor. ah dox sa kaw ngay fayu dox sa kaw ngi dóor dox sa kaw faaxe na ko. la ilaha illallah war na ko ndamba war na ko ndamba war na ko ndamba war na ko ndamba war na ko ndamba war na ko daan na ko. waa Caaray am nañ ndam. naka doo daan na ko. naka doo daan na ko. naka doo daan na ko. naka doo daan na ko. naka doo daan na ko. tent waa Thiaré la tent waa. te combat bi yàq. non waaye li li ma su lu mu jàppale quoi téere. mais naan. naka de. waaw waaw waaw xam nga loo gisee mu yàgg quoi danoon duggoon fii nii am tefet yaa ma gën a xam buy tuwaat foo ñuy mooy loolu yaa ma gën a xam daal. moo ma woon ni mbër laa man. wala ma def mbër billaahi looloo ma def mbër bàyyi sëñ Tuubaa non fu mu jàpp moo baaxul daa jàppale taxaw bëriwul mais man ku ma xam-xam bërekat laa yaa ma gën a xam. foo jëm eh, ci kaw la ci kaw ku ñëw baax na ci kaw. kaw kat eh, ku ñëw baax na. alhamdulilah yow Baba Diakhal bu sab sab. waaw waaw. amul may de. Alligator ak Bourba Jolof jàppante nañ jàppante nañ ñaari xale jàppante nañ ah dina ko bal Alligator dina ko jëm bañ bañ jàppante nañ ñoom ñaar. bu doon samp na benn bu di omb jàppante ne ay nga ko ci omb bu bañ ay laaha illallah ñaari xale yaa ngi bëre laa ilaaha illallah alligator ak Bourba Jolof alligator ak Bourba Jolof alligator Bourba Jolof ah, alligator ñu dóor alligator ñu dóor alligator ñu Bouba Djolof a ngi jàpp rek alligator alligator bu Djolof lii jàpp ah dana ko jéem a xar mu bañ Bouba Djolof dana ko jéem a xar mu bañ Bouba Djolof dana ko jéem a xar mu bañ Aly Gador ak Bouba Jolof Aly di leen fàttali tey ñu ngi fii ci arène national ñu ànd ceeg waa CNG de lutte mooy les mercredis de l'arène euh, ñëw pour ñi nga xamante ni mooy espoir lamb yi nga xam ne génn guñ ci lamb ji CNG dafa pare pour jug jàppale ñooñu ndax amuñu lu dul làmb te xale mooy dooni mag ëllëg ay ngi eh, dóor Bourba Diof doon dóor bañ Bourba Diof ak Ali Gator Bourba Diof ak Ali Gator Bourba Diof maa ngi nuyu waa VIP yëpp ñu lay jox seen wàccuwaay ku si mel ne Assane Kenkayri Baye Niass borom camion waaye Moussa Gueye mu ko fàtte Mame Moussa Touré Malick Fall Pambay Tidiane Seck ak ki nga xamante ni nii mooy Thialé booy tudd si bu mag bi si waaye du ma fàtte ki nga xam ne mooy ndongo mu ndaw waaye ñaari xale yi ba léegi ñu ngi jàppante. dañ bëre gaaw jóge fii. doomu Thione Mbaye waaye lambit yaa ngi noonu. Bourba jo Bour Jolof ak alligator ah. Jolof daa mel ne xar jëppee loo a télé sànq loolu kenn du ko xar jëppal saa boo ko xaree jëppal bu ko fee sa tristesse ak alligator Ali Ali Bouba Diaw sam mbër mbër ombo alligator nga cokaas cokaas ku sew moytul ma loolu moytul ma cokkaas gu sew gi moytul ma cokkaas gu sew gi lu lay naqari moo la koy teg ba ja ah dama xar bi daa day téléphoné xar bi xar bi da koy kenn du ko téléphoné ndax boo ko defee bu yónnee sa biti sa triceps bu la remplacé mënu la mbot mu kenn mbot mu kenn bul foog loolu la bal la Jokal na ko Jokal na ko Jokal daan wala tegaat na laa ilaaha illallah. Bourba Diolam ak Ali waaye daan na ko. Ali Gator ko doole doxul jàmm. Idi Ali Gator daan ko. jël bu rëy la ko daan doole doxul jàmm. lamb xale. laa ilaaha illallah. doxul jàmm. lamb xale koy def. alligator daan na di nga xam ne mais xale yi jël ñu am solo. ndax Alioune nuyu naa la. waaw maa ngi leen siyaare waa wasaare baa yéen a ngi am jàmm. ñu ngi am jàmm ñoo ngi sant wér a man maa ngi sant maa ngi Pikine maa ngi Ginnaaw Rail nekk Igri Falaay ba lay jàpp sama ñaamur. mais loolu it déggoon nga dem États-Unis ñëwaat. nga am loolu waajal wala. waaw instant yii nii mooy li ma wax rek man ah avant may voy avant may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 xanaa li nga wax ñemewu ko Alioune Mané yaa ngi wasaare. ñëpp samay morom lañ pour gàttal wax bi rek moo tax ma wax loolu ku ñëw ma bëre moom. mais jàpp na seesi. am na ay seesi. yu proposé bëri. am kan lañ la proposé. ay yàgg bëri na santaan ñu ngi wax nañ ma ko. ak kan. Modou wax nañ ma ko. armée wax nañ ma ko. sama koma armée la ñu nekk si la ñu nekk nii. sa combat waaw Idaali ñu moo koy waaw. jàpp nga ni combat boobu du duggee ko combat boo xam ne man si moom la la des waaw. ñu ma bëral bëri na ñu ma bëral bëri na de. kon moo tax man man ñaanu ma ko sens dama koy may sens man maa a a bëri ma ko sens. bu ñëwee nga may ko sens. waaw. mais est-ce que ko may sens ba pare am si problème. ban sens am problème.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 yaa ngi lu ma la wax damaa bëreeg si may morom. arme arme moo ñëw pour bëgg si moo ñëw si lamb. su ñëw ma may ko chance ñu bëre. bu ñëwee ñu may ko chance dégg nga xam moom la armé wax. gars si biir gi jël li nga xamante ne nii mooy sixième combat bi dox si diggante Drago ak ki nga xamante ne nii mooy Abdou Samb naa leen la xale yi wasaare TV ñàkk seetaan wóorul mi ngi mel ni jigéen bu toll sayta sëy ba mu saa ta kaw ngay doon ndax mooy télé bi jege di la won sa bopp mbokk internet ko di ba seen notification pour am bépp vidéo bi nga xam ne wasaare moo ko fi bàyyi ndax as wasaare mooy li nga xamante ne wi kon gars yi ñu jël sixième combat bi dos ki nga xamante ne nii mooy Dragon ak Abdou Samb kon gars yi ñu dem jëli ko. dóor daan la dama koy duma daan ko barke sëñ Saliou Mbacké Aliou Mané nekkewu fi dara lu dul sañse la ma kese dama koy xaaj jolli ko ma duma ko daan ko dégoo ma sama ne kii kii ko duma daan ko dama ko duma daan ko dama ko duma daan ko barke sëñ Bamba dama ko duma daan koo duma daan. Diourbel dama naa duma daan la. barki si yaa ngi non non yaa ngi ci télévision yi yaa ngi ci télévision yi. maa ngi ci télévision yi. waxal Diourbel Diourbel mosuma foo bëree. Diourbel mosuma foo bëree. billaahi wallaahi non non. dé déggoo ma. soo jafar barka alxuraanul karim mosuma bëre biir Diourbel. kii ni muy wax ay waxu neen la. Aliou Mané bu jëlee sama avance ma duma ko daan. fi nekkee lan la fi nekkee sañ sa fi nekkee ak jël dale bu ko jëlee ma duma ko daan ko. waaye seen ko baa ma ko waaye kii man sax man mbëri na nekkoon dina am lu sàcc. mbëri dof ma kii bu ma nekk di wax moom sax damay ñax fayda. waaw kii kii kii fa la kii yow yow kii ah non waay wasaara waay waay wasaara waay arbitre sifflé na combat bi sixième combat baa ngi noonu dox si diggante Dragon ak Yaba ay am jàpp na ko samba de jàpp na ko jël na tànk ba laa ilaaha illallah daan na ko Abdou Samb daan na Dragon vite fait bien fait jëli ba daa gaaw daan na ko daan na ko Abdou Samb daan na Dragon Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. daan na ko. Dragon daan na ko Abdou Samb bu ndaw ak Daadu Ngor. arbitre arrêté na combat bi. bu ndaw ak Caadu laa ilaaha illallaah mooy tur ba jinne bu ndaw mujjee nekk jinne ju mag jinne bu ndaw mooy nekk jinne ju jinne bu ndaw ak ngor jinne bu ndaw ak ngor ña xeex ña ngi dóor moytul ku ya ma ngay dóor laa ilaaha na ko daal na ko keroog na laa ilaaha illallaah ñaari xale yaa ngi noonu jinne bu ndaw jaanu ñoom jinne bu ndaw moo nekk sun turaat caatu ngor moo nge moo nge na ko lele bu la ilaha illallah la ilaha illallah lay jinne bu ndaw bi jinne bu ndaw bi na jinne jinne bu ndaw wuyoo na turam laa ilaaha illallah Djily Bou Ndaw woyoona turam Djily Bou Ndaw woyoona turam laa ilaaha illallah Djily Bou Ndaw wuy ki nga xamante ni mooy ngoon jël bu rëy ba rek Papa Boy Djiné la dama nekk kaso ne ñi suma génne billaay wallaay taalaay booy bës tee defaral la yow yow Papa li ñu nëbb si moom laa yéex si terrain bi. it dama waxoon naa la ko. Idi ma ki ci jël sama entraîneur. ba mu daj moo si dàq bëre sama entraîneur. damay taxaw ma wax ko. kooku la Modou Fall Modou man defaguma dara si li nga bëree. si li ma bëree. dañ ne ma carrément amul lu ñu lay conseillé bëre. xam naa ne mbañu séeréer la mais bu ñu doon contact fii ba suba du daan. di nuyu waa PC waa Camp waa Rebeuss kaso yu nekk Sénégal yëpp maa ngi ba jëm fort maa ngi nuyu waa kaso bi yëpp di leen wax kaso day jeex yal na yàlla dimbali la yàlla jàppale détenir lu mu am du nit ku bon njuumte la des fois ñu yóbbu la fa des yaay tooñ ñu dem fa mais ku si nekk ñu dimbali la jàppale la xam ne nit yàlla da kaa fonk du mala fi ma jëm ñaari avance laa jël Balla Gaye moo xewal maa ngi ñëwaat si Ada Fass ak nu mu tuddati sax dafa mbër. laa xay loolu la xamaguma ko fi la ñuy doonaat waaw. c'est parce que si biir siisu bu tëj ma kaso boo xam ne defuma si dërëm xam naa sama mag waa boo jëlee jaar na fa yàlla tëjul ko sa démb bu nekk sa tay ko gàcceel idi ba kaso baa ngi lay dañuy gis ñu lay yow da ngay tudd kaso bi sama waa kon misel mënu ma leen a fay Kër Massar guy gi mu ngi nii ñaari grand combat mu gagné ko daan diin grand combat Iba Mar ñu fay bëgg ko lekk ñun misel lañ dëkk dañoo am war a waaw. ñu ki ngeen gis nii kenn dootu ko laajte si réew mi. ndax moom mii moo tax location wàññeeku si réew mi moo tax kenn ku ne yor si nga xam sa titre foncier waaye nuyu naa la. fay naa la. moo nekk ci loolu. waaw maa ngi nii la sant yàlla bu baax a baax gannaaw bu ñu sant yàlla jës bi xam nga gërëm suñu ñaari waajur maa ngi sama doom baay amee ja xam nga tuddee ma bés bés bu rëy si man. yaa a ñëw si lamb wala. ñu ngi tuddee bis. Ah, ñu ngi may soog a bis mais lamb dafa yàgg sama dafa yàgg sama amul ko xam nga parce que tamit ñuy dem ma taseeg sama doomu baay xam nga amee ja xam nga mu tuddee ma bés bés bu nekk bés bu rëy ci man. mu tuddee la bés bu rëy boole si ñaari xale yi naan ñaari xale yu am jom yu am ginnaaw la ma bàyyi rek noo war a waajee si bés boobu. non dañuy waaj bés bi moom suñuy bés la dañuy ñaan yàlla rek xam nga yàlla bañ a tas yaakaar ba boobu incha rabbi xam nga ñu ngi koy waaj bu baax a baax daal ñu ngi koy waaj. ñu ngi bu baax a baax. ñu war a ànd ak say mbokk nii. Ama Dia tuddee la bés boobu lan ngay wax si làmb. non làmb moom sa amoon dem nga yàgg bëgg te booy laa andi fii takk ndeyam dama koy ñaanal yàlla xam nga yàlla may ko ndam xam nga ñoom Clinton ñoom Babacar Diallo ñoom Zos gaa yëpp xam nga si ma lay na teere ñu ngi fi mel wasaare teere bokk non yéen bàyyi leen ba ngeen ñëw rek boo leen ñëwee incha allah waa wasaare mel waa ma may naa la teere may na teere dégg sa waali ar moom may na wasaare teere Aliou Sow na combat bi Omar Naar ak Miss Mourou Omar Naar ak Askia na combat bi daf mel ne ko bëgg jeexal nag Miss Mourou ak Omar Naar Omar Naar cokkaas na léegi ak Omar Naar Miss Mourou Omar Naar Miss Mourou cokk Omar Naar door na léegi góos benn góos. Miss Mbour Omar Naar waaw ah, jàpp jël daan na ko Omar Naar daan na Omar Naar daan na Miss Mbour Omar Naar daan na Omar ah jàpp si ko ak Boy Moundé Sa moo ngem moo moo nekk sunu ngem moo ngem weex nekk sunu ndeyjoor Boy Moundé moo ngem moo ngem vex nekk sunu càmmoñ Sa Thiès cokaas na ko wàcce ba tolloog moom di dóor ay coup jël tànk ba daan na ko na ko vite fait bien na ko Sa Thiès daan na ko Sa Thiès kottu na Cheikh Sa Thiès a noonu équipe Boy am nañ ndam per bu xaar ak noonu kontaan na la ilaha illallah Sa Thiès daan ko ak ñun euh, staff yëpp préparé ko ñëw ñu toog bëreloo ko loo xam ne lii loolu dafa ñëw rek liir ko lamb di jeex. non parce que Sa mii xool xool leen ko nii rek actuellement ñu ngi ñu ngi ci def ci moom loo xam ne lañ def ci Kalmandour def ko ci Zambala moo ne ci Sa Thiès mi. incha allah. waaw yor. Pell fay. si loo ne. sant ak mu njëkk moytu. tey doo bëree. ne. billaay wallaay di caaxaan. takk jabar dootul daan doon. sama jabar nag dama ko gërëm comme nopp la ma nopp ko. instant man grand combat soxla. grand combat ko ngeen ko mooy mooy. waaw waa CNG dégg ngeen noonu nee nañ mercredi dañ koy jël féetewoo ko tuddee ko les mercredis de l'arène waaye ñu ngi si boole ñaari xale yi am ginnaaw ñaari xale yi am lam ñam yaakaar ku si mel ni Iba mécanicien ak ki nga xamante ne nii. mooy Takander ñaari xale yaa ngi leen Iba mécanicien moom lañ jàkkaar mooy Ndamali Takander moo wane ginnaaw Iba mécanicien abi sifflé na combat bi mercredi 16 juin 2021 fii si arène nationale ñu ànd ceeg yi nga xam ne ñoo wax CNG de gestion bi nga xam ne moo ëmb nga ma moo ëmb lamb ji ñooy foone woon tey diggante grand combat bi dox Iba mécanicien ak ki nga xamante ne nii mooy Takander Iba mécanicien lay jàkkaarlool Takander moo wane ak ginnaaw ngem lu weex li internet yi ngay xel. wasaare Iba ma ngeen ko ne abonné ba sa tuuti notification oh jëlu jël jëlu Iba Ngor Sèye jël na ko Iba ma ngeen Sèye jël a ngay rasu takkandeer a ngay ba sa Iba ne laa ilaaha Iba jël ko ci bët mu mooy laa ilaaha illallah ñaari ko jéem bañ Iba ma ngeen Sèye ak takkandeer Iba ma ngeen Sèye daa mel ne daa bëgg a jeexal combat bi Taka Nder génn na saako yi Taka Nder génn na saako yi ñëwaat Taka Nder saako yi. Abi na combat bi Taka Nder ak Iba mécanicien Iba mécanicien doon na bëgg a jeexal combat bi léegi mu bañ. ah daa doon la fàq na Iba Maguette Sène Takander ànd nañ bëri bëri suuf sa jógaat mbay xale yaa ngi bëri de xale yaa ngi bëri làmb ngi nii waaye Iba action yi nga fere te nga moytu ba doo la metti Iba doo ko jëm bëtu bañ ben Iba Iba makin seak Takandar Jangan coba lagi Ah Takandar dafa jëm xar mbañ Iba jël na la ilaha illallah Iba doon ko jël Takandar bañ ñaar ñaa ngi noonu ba léegi Iba ak Takandar Iba Mécanicien ak Takandar ña nga ca ba léegi ñaar ñaa ngi noonu ñu ngi jàppante ba léegi ak Takandar la ilaha illallah Seydi. waaw Babacar. Eh, Maguette Seye mi tànn action yi muy tànnee di ko forcer ba du si téere lu ko naqari. non pët bi du yegg day téléphoné pët waaye su bëttee dafa war a yónni tànk ca xamal wala mu bàyyi loo xam daw jargandu waaye est-ce que tamit taxandee bu Iba Jalle du ko dóor tànk daw jargandu ak moom na Alioune na comme daal defoon Alioune Diop ndax njool bu ay tànkam neexee nan la war a bëree. dégg naa ne waaye nag xar yoo doon ko wàcc na Iba Maguette Seye wàcc na di ko xar. takandeer bañ. la ilaha illallah. Iba ngi dóor ku Iba ngi dóor ma Iba ngi dóor wàcc na jël ko daan na ko daan na ko Iba mécanicien daan na Takander Iba mécanicien daan na Takander Iba mécanicien daan na Takander jël Iba mécanicien daan na Takander Iba mécanicien daan na Takander Iba mécanicien daan na Takander Iba mécanicien daan na Takander Iba mécanicien mbokku internet yi nga xam ne ñoo bàyyi xel wasaare TV gis nga xam ne mooy amoon arène nationale waa comité de gestion nationale indi ñu ko fi muy combat bi dox si diggante Iba ak ki nga xamante ni mooy waaye mu tottal ay combat am solo gis nga xale li ñu fi bëre mu ngi nii CNG jël mercredi bu jot tuddee ko le mercredi de l'arène pour jàppale ndaw ñi waaye mbokku internet nga xam ne ñooy bàyyi wasaare xel nee naa leen mooy télé bi rek jege di leen won ngi mel ni jigéen bu toll seeta sëy à bientôt ak seen beneen émission Wassare TV wala beneen journée sunu làmb kon gars yi ñoo def noonu dox dig deeje ak beneen yoon jërë ngeen jëf mbokk internet yi jaay jëf waay gars yi